waxee rek ndax bis bi eh, soxna Aminata Touré da ci am cër bu bu yaatu boo xamante ni cër la bu mu bokkut ak kenn ndax sama diggante moom te lépp ak bokk lal ko ak wëllëre lal ko ak jàppante lal ko ndax lu ma yëngal ci dëkk bi mu taxaw taxawaay bu mat sëkk eh, kon jàpp naa ne kon luñ fii def rek ak luñ fiy wax moom lañ koy defal moom lañ koy waxal. ndax yàlla dafa dafa dafa fonk lu kóllëre fonk lu it mbokk lu ñu fàtte mukkit nag koo xam te ni tamit sunu sunu lépp di Ousseynou juuf nekk fële ci impôt yu bu dakaar waaye nag di waa Thiès di fi yëngu-yëngu boo xamante ni ñëpp xam nañ ko te lépp di lu baax di nekk nit ku yiw di ku bëgg dëkk bi di kuy jàppale waa dëkk bi ci li nga xamanteni moy mooy yitt mën ta ñak euh kon Ousseynou Diouf it ñu koy koy bu baax a baax luñ ciy def rek maam moo koy àndante incha rabbi di ko yëgal lu bëree bëri tamit Serif Naama Aydara nga xam te ay surtout yonent bi la alayhi salaatu wasalaam nekk ci dëkk ñun ak Serif Sebbu di ko yëgal di tamit. ak sëriñ Moustapha Moustapha Aydara mi nga xam te ni moo jiite conseil consultatif bi nga xam te ni euh, lañ ma cee boole jox ma ci commission yi ma war ko jiite ci lépp lu jëm ci wàllu gouvernance euh, ci biir conseil bi man mii maa yore commission boobu euh, kilifa gi nga xam ne moo yore conseil bi di monsieur Aydara ñu ne ko Moustapha dara ma ak waa conseil bi yëpp bis bi ñoo koy àndante incha allahu rabbi ak mboolem délégué de yi yëpp. xam naa rek ma bu ma tuddee kenn rek Mouhamed Mar Ndiaye Mamadou Mar Ndiaye moom bu bu r yaakaar naa ni ci turu kilifa ki nga xamante ni euh, <coughs> mooy jiite mboolem euh, chef de quartier yi yaakaar naa moo ko awee ci turam rek loolu yaakaar naa ni ñoom ñëpp dañ ko danañ ko dégg euh, monsieur le maire adjoint au maire Ahmed Ahmed moom it sunu sunu rakk sunu sunu xarita sunu jëflante bi tamit xóot na lool. moom it ñu ko ko yëgal mu ànd ak dene bi ak mboolem kuréel yooyu ñu nekk xam ne daal bis la boo xam te ne bisub Cees la waaye bisub kër Cheikhul Xadim radiyallahu anhu la bisub lislaam la ndax ñun sañ ñoo woote dara ci loolu turu lislaam lislaam nag dafa yaatu kenn ku nekk war nga taxaw ngir suqali ko taxaw ngir xamle ko taxaw it ngir boole bokk gi ak wëllëre yi xam ne Sénégal ñu ñëpp ko bokk ñu ñëpp ko war a bokk sàmm ñu ñëpp ko war a bokk euh, taxaw ñu ñëpp tamit ñoo war a bokk ci luy développer réew mi te ko delloo ginnaaw loolu na mën taam loolu jikko ju rafet akum dëgg akum jub lii rek la euh, réew yi mën a aw ba mën a jëm ci kanam euh, di ñaanal kilifa yëpp nag ndax bis bi dana am ñaan waaw yu fàttewuñ tamit sunu wóllare euh, Serigne Mor Gueye sopp na bi ci taxawaayam ci diine ji taxawaayam ci këri diine yi waaye taxawaayam ci mboolem daara yëpp moom tamit ñu ko ko yëgal moom Mor Gueye sopp bi ak mboolem waa kuréelam ñi mu àndal ñëpp fàttewuñ nag monsieur le moom mi fi nekk eh, di eh, eh, Amadou Sy ak monsieur le préfet ñoom ñëpp ñu ngi la ko yëgal ak commandant yi fi nekk commissaire regel ñoom ñëpp ñu ngi la ko yëgal xam ni bis la boo xamante ni soxla nañ ca ak taxaw soxla nañ ca ak jàppale maag ñi nga xamante ni mooy fondation Ridwan ndax lu may def rek ci turu fondation bi laa koy defee nga xamante ni ñu ànd ak man di liggéey at yëpp te tayyuñu oh, so yokkatuñu ngir yàlla ak lislaam kon képp ku dégg sama kàddu gi jàppal ni mooy sa woote e, bis bi incha allahu rabbi le 6 octobre la fii ci auditorium bi fi cinéma mi ci nekkoon te jàkkaarloog promenade bi foofu ci salle bu mag boobu foofu lañ koy defee e, ren ñu ci invité ñëpp du ko yëgal ñëpp e, fàttewuma kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fàttewuñu tamit koo xamante ni daanaka bu yaboon ni mooy Thiès. di euh, Mikaël Mbaye ñëpp xam ko ci jubale ñëpp xam ko ci dox lu baax ñëpp xam ko ci bëgg dëkk bi ak taxawu ñëpp moom it ñu ngi koy koy fàttali bu baax xam ni tamit yëf yi incha allahu rabbi ñoo koy ànd faamaay dara bi fàttewuñ ko seen bu njëgeen fàttewuñ ko ñoom ñëpp wax dëgg yàlla suñu jigéen lañu te ñu am ab taxawaay lañ ci dëkk bi soxna Sufi Jóob fàttewuñ ko wax dëgg yàlla fàttewuñu ñoom may mën a jeen ñoom ñëpp ay ay seen taxawaay ci dëkk bi xam nañ ko ci démb njëkk tey tey taxawaay yëpp taxawaay yu rafet la fa fàtte woo tamit soxna Ajaande Tikka Njaay ñu ak ñu mànd ak ñëpp ñoom ñëpp fàttewuñ leen ndax ay jigéen lañu waaye seen taxawaay rafet na ci njaboot gi rafet na tamit ci dëkk bi rafet na tamit ci bokk yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñoom ñëpp ñoo xam ne daal bis la boo xam ne bisub Sëriñ Tuubaa la ndax wàccaayu màggal la wàccaayu màggal la eh, ñu ciy waxtaane Cheikhul Khadim ak kiri diine yi di ci waxtaane digganteem ak ni mu dem ak diine di eh, kiri diine yëpp ndax sëriñ bi mbokkum ñëpp la soppeem ñëpp la wala ñëpp la kilifa ak ñëpp la kon loolu daal ñu ngi ko yëgal ñëpp. ñu fàttewuñ tamit sunu waa kër waajur eh, Thierno Abuja nga xam te ni ku ne xam na taxawaayam ci dëkk bi ñu eh, ko koy yëgal di ko yëgal Ibrahima Dia di sunu wóllare ak njabootam yëpp rawatina Serif nga xam te ne wax dëgg yàlla moom it ñu ko koy yëgal ndax taxawaay am ci dëkk bi taxawaayam ci kër ci wetu sëriñ bi ci Thierno Abu ku nekk gis na ko ko ne dégg na ko di ko yëgal ki waa kër alxaaji Seydou jiite seen taxawaay sëñ si Ahmada Tidiane jiite mu nekk ci bopp ba di ko ko yëgal bu baax a baax ak jigéenam soxna seen bu Diop ah, di ko yëgal tamit xaaji ah, Mansour mi nga xam te ne wax dëgg yàlla ku ne xam ne sama diggante moom di seen porte parole euh, mboolem ku fi yëngu ci wàllu lislaam rek kuréel yëpp rek fàttewuñ ci kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal di ñaan sunu borom subhanahu yàlla ak lañ ci bis ba le 6 octobre lépp tisbaar nag lay tàmbali incha allah rabbi ndax dañoo bëgg lépp teel di ko yëgal ndax rawatina nag eh, suñu mbokki sëriñu daara yi a ak ñu ñu àndal ñëpp ak waa waa yi du leen mukk ci san jàllo ñoom ñëpp ñu leen ko yëgal te di leen bàyyi xel ci bis bi eh, njabootam baaba ja baaba gàll jàllo ak ñu nekkal waa jàkke jumaay AICEC ñoom ñëpp rek fàttewuñ ci kenn ñoom sëriñ cubb ñoom ñëpp rek xam ne bis bisi bisu ñëpp la ñu ngi leen ko yëgal te di leen ci bàyyi loo xel waa taax ko suñu mbokki njaxate ya fa nekk yëpp ñu ngi leen ko yëgal ñoom soxna wa jaxate ak seen mbootaay ñoom ñëpp sage moor mi nga xam ne mooy yore daara ja mbooleem ku sant Kébé tamit te it eh, bokk yéen la ñu ngi leen ko yëgal foofu di waa Kébé yéen eh, waa kër sunu maam alxaaji Kébé ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal ak mboolem bokk yee wër foofu rek ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen ko yëgal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.